ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngi ñaan sunu borom ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi mu boole ñu ci jaamam yi ñu defal tawfiq fi dunya wal axira sunu fàttali tey comme ni nu ko baaxee woon te ngeen xam ko ci ay bi ci des waxtu yi comme ni nga xam ni yonent bi daana def lu mu mel kadalika Abdullah ibn Mas'ud tamit doon ko def comme ni mu rotugee atar ak julit dafay mar ku ko fàttali ci yàlla su dee ak njulteen wér na comme ni muy maree ndox pour naan lu may aajo woon yëg naa mar aajo woon naan ak julit bu ngëm yàllaam wér noonu lay aajowoo ku ko fàttali yàlla lu tolloog li ngay noyyi par bis yëgal ni lu toll noonu yaa ngi koy aajoo ci xam-xam par bis comme ni ko moom Ahmad doon waxee soo ko amee baax na boo ko amuti yëgal ni kon am na lu manqué ci sëb ni lekk ak naan ni muy dundalee aw yaram lekk naan nelaw ni muy nayilee aw yaram noonu la fàttali ak jàng alquran ak xam-xam di dundalee lan ruux xam ngeen ni doomu aadama ñaari xaaj la xaaj bu njëkk bi yaram la lekk ak naan ak nelaw bokk na ci di koy dundal xaaj ak ñaareel bi ruux la mooy la nga xam ne suñu borom moo xam mooy lan ak fu mu nekk te mooy tax nit di dund ruux li koy dundal mooy ñu fàttali yàlla jàng alquran ak ngëm yàlla ak góorgóorlu ci sa wàllu diine fàttali tey maa ngi koy jëme ci tomb bu ama am solo xanaa sax kenn dina xanaa yi ñuy wax yëpp am solo ma ne waaw yëpp am solo ndax lislaam lu amul solo ci amul islam lépp ma am solo léeg-léeg nag di ngeen faral di ma ne tomb bu am solo lu tax may waxee noonu mooy islam lépp am solo waaye ñun da seytaane dafa bokk ci nim ni ma ne tomb yi ëpp solo ci ëppal nu njariñ léeg-léeg daf ñu koy farceloo ñu ne di nab nabi ci yoo xam ni am na yu ko gën a yomb gën koo jege te màngukaayu tiyaaba yu rëy la loolu mooy lan da ngay gis koo xam dëgg la jàmbaar la mi ngi góorgóorlu ci ay sunan ndeysaan nga xam ne boo ko gisee rek sa xel dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ma ngay góorgóorlu ci ay sunan fekk am na bu ngand bu nekk ci ay ron tànkam waaye gisu ko bàyyiwu ci xel lu tax loolu ndax dafa fekk seytaane mooy jël benn muuraay muur la ko pour doo ko gis ndax dafa xam ne bii boo ko gisee rek musiba dal ko bii boo ko gisee rek musiba dal ko ndax ni mu koy dalee mooy say bàkkaar day ruus say affaire baax nga gën a jege yàlla dugg àjjana mucc safara te loolu arrangé wu ko bëggut loolu loolu mooy lan mooy gisub àjjuna tey ñu ngi si alxamis suba la àjjuna moo tax da ngeen yaakaar ni àjjuma ak samedi ñoo yem déedéet àjjuma ak dimanche nag déedéet àjjuma ak altine bi àjjuma yëmut ak benn ci bis yi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam xayru yawmin talaat fihi shams yawmul jumaa gis yi gën ci gis boo xam ni jant fenk na ci mooy di kat àjjuma mu ni ci la yàlla bind aadama ci la yàlla bind dugal ko àjjana ci la ko génnee a àjjana ci la faatee ab ruuxam te ci la àll àllaaxira yi amit na bàyyi leen xel aj àllaaxira àddina bis luy tukki bisu àjjuma lay doon xadis ba mu ngi ci Buxaari Muslim ñëw na ci rot na ci beneen riwaaya na mu ko tëddee daf ni sax moo ne amul benn bis ci xadisam abi hurayra sama jumut dañu amul benn bis lu dul rab yi yëpp dañuy yuuxu ak yuuxu ndax tiit bu ñuy tiit ni suba la allah tey la aj àllaaxira mu ni doomu aadama jinne rek ñoom ñoo dul tiit bisu àjjuma bis la bu màgg yeneen bi daa toog ci xadis boo xamante ni xadisam anas ibni malik dafa toog ba mu yàgg jibril dikkal ko fekk ci loxoom benn affaire bu mel ni seetu mi ngi affaire bu leer nañ ni benn tomb bu ñuul nekk affaire bu leer mel ni seetu benn tomb bu ñuul nekk ci digg leer leer bi jibril laaj ko lii lan la mu ne ko lii de mooy bisub àjjuma réer na chrétien yi réer na juif yi ndax ñee dañoo jël samedi ñee jël dimanche te ñoom ñee leen ci jiitu yàlla tànnal leen àjjuma mu ne ko bis bi gën ci bis yi mooy bisub àjjuma wax ko ci ay ngëneel yu bari ba xadis lay jeex lu mu ko wax mu ne ko àllaaxira ñun moom la ñuy tudde yowmul mazid yowmul mazid mooy bisab ndolleen ci bis bu ñuy waxtaane lu jëm ci ajana yowmul mazid muy bis bu yàlla yi dolli jaam yi ci biir ajana muy xadis bu gudd bu téemaane mu ni moom bis boobu ñu ngi koy tuddee bisab àjjuma mbokk yi àjjuma lu rëy rëy rëy lu màgg la wallahi summa wallahi ku yàlla subhanahu wa taala defaloon tawfiix nga yëg li ci àjjuma da ngay yàkkam ci àjjuma yegg si da ngay yàkkam ci àjjuma yegg si da ngay genew ci yeneen bis yi parce que da ngay yàkkam ci àjj àjjuma yegg si xoolal ñu bare ay bàkkaar soxla suñu footoo xoolal ñu ñëwee ay tiyaaba bëgg suñ dollee koo xool ni ñu soree yàlla bëgg koo jege ah xoolal suñu suñu suñu suñu xol yi ni mu wowee ñu bëgg suñu ko dàggee ñu yëpp dafay daje ci bisu àjjuma si moo tax àjjuma dama ni ku xamoon gëne li te nekk wallahi da ngay yàkkam ci àjjuma loolu si waat li rot ci àjjuma ci ay ngëneel moom mënumaa wax lépp ndax dafa bari ba jéggi dayo toog di ko liir ci téere sax wala nga di ko jàng sax dañuy jël waxtu bu bari waaye dinaa ci tënk rek la suñu borom jàppandal fay na dikratan faawul la bisu àjjuma su dikkee bokk na ci yi jullit bi mën a màng ci ay tiyaab bi ci njëkk mooy sangu set sangu set bu tombeeg gis boo xam nit ki nag daa gisoon baax wala mu war a am lu mu sangoo set sangu set googa du doy pour nga sangu fa àjjuma maanaam bu nit ki yeewu woon fekk mu gisoon baax day doog a set bisu àjjuma mu sangu sangu baax loolu jotewut ak sangu set dara loola sangu la beneen sangu sangu la ah abu xataada doomam ji góor daa koy sangu sangu janaaba jumaa jot mu bañ a sangu mu ne ko ndax sangu mu ne ko sangu woon na soo mu ne ko janaaba laa doon sangu de mu ne ko waaye kon sangu waatal geneen ndax jii daa am lu ko tax a jóg jee am lu ko tax a jóg kon nit ñi ñu ngi gaawale ko fii bokk benn ngoo ñaareel bi mooy gisab àjjuma teel a dem da caa baax sangu ga nag day ànd ak laal parfum jiw loolu lépp am na xadis bu leen tënk ne nit dinaa ko tudd léegi insha allah su nit ci teelee sangu sangu bu ñuy tuddee sangu te am na xadis bu ñëw bu wér bu ne fii ba àjjuma bi dellu si yàlla da lay jàppee ku laaf maanaam yaa ngi laaf yaa ngi amug laaf fii ba àjjuma bi dellu si benn ngoo yéen yàlla bi ne ne bu àjjuma dikkee nit ki sangu set teel a dem seet ci ay yéreem lu rafet laal parfum laal gët parfum su ko amee bu amee diw sax mu diw yaramam wala boppam nii la xadis bi tëddee comme gis nga yooyu yëpp ñuy def defe ne mbiri àjjuna la fekk yonente bi tudd na ko ci xadis sallallahu alayhi wa sallam teel a dem jumaa nag teel a dem jumaa yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci lii ma wax yëpp ay xadis la xam ngeen waxtu bi man dafa gàtt mun ma xadis bi ne ma wax ko ci arab doo ko wax ci olof waaye yi may wax yëpp jàppal na xadis lay wér yéen yàlla day àjjuma ju jot yàlla day yabal buntu bu ne ci buntu jàkka ji ab malaaka dafay taxaw di bind yoru koy di bind kër yi diw dee teel a ñëw diw de onze heures et quart la ñëw diw de onze heures nangam la ñëw diw de midi la ñëw di bind kër yi mu ne ci njëkk a ñëw dañ naan bindal leen ko tiyaaba ji dañu ko saraxe ak jileen allahu akbar commencé yaakaar ngeen ni man nii am naa njëgu jileen fi mu ne nii wala jileen ni mu seere ñu ni dañ koy bindal tiyaaba yi ko saraxe benn jileen ka ca topp ca heure ba deuxième heure bi ñu bindal ko ku sarxe aw nag troisième heure ba ku sarxe am kuy quatrième heure ba ku sarxe ganaar cinquième heure ba ku sarxe nen noonu lañ koy def di ko def di ko def bu imaam dee gene rek ñu len seeni koy ñoom it toog di déglu xutba kon lan moo tax doo gaaw a dem bis bu nekk rek fexeel yow moom xaw ma lan sa programme dund moom fexeel àjjuma di jot moom sarxe nga jileen mooy ma teel a dem jumaa ji waaye su ma yegsee ci jumaa ji bokk na ci lañ may sant mooy ma noppi déglu yéen yàlla bi nee na ku jàppee këram mooy xadis may bëgg a wax ku jàpp sangu set jàpp sa këram laal gët melanu laal parfum sol yére yi gën a baax waaxu ndànk teel a ñëw ci jumaa ji imaam xutba nga déglu ko yàlla da lay wax nan la baal say bàkkaar ba àjjuma bi del si comme yàgg suñu borom kontaan mu ne firisal leen ma ko trois jours allahu akbar allahu akbar xoolal àjjuma lañ la ko commencé baal ñu baal la àjjuma samedi dimanche altine talaata àllarba alxamis ba àjjuma bi dellu si waat xanaa doy na ndax ba àjjuma boo defaatee noonu ñu defaat noonu waaye pour wan la yàlla ñu mën a fayee ñu ne plus trois jours gis nga samedi dimanche ak àjjuma bi nga war a julli ñu ñett fan yoo xam dafa góob sax booleel nañ la sa njëggal ka kan si ñun moo bàyyi bëggul yàlla jéggal ko subhanahu wa taala xoolal yent yàlla mu ne wal jumaatu ila al jumaa kafaratun lima baynahunna ida jitunibat al kabair ajjuma ba ajjuma bi del subaa day pomp mboolem bàkkaar boo def ci diggante bi ba mu def bàkkaar yu mag yi lu mel ni jabar rey bakkan tuumaal ak bor ak yu demee noonu bàkkaar yu mag yi yonent bi lim sallallahu alayhi wa sallam kon xoolal ajjuma ci li ma ci war mooy teel a préparé wu yàkkamti àjjuma di ñëw ngir dem déglu ci leen ci yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam képp koo xamante ni ñëw na ci àjjuma ji mu def noonu ñu la wax déglu xutba ji ba xutba ji yegg danañ ko fompal ay bàkkaaram ba àjjuma ji dégg allahu akbar xoolal ci jamono ji fitna yi ñun bari li ngay xool li ngay dégg li ngay gis ah li ngay xalaat li ngay limal limal limal ku ne yaa gën a xam sama su yàlla bari sutura rek yàlla yàlla gën na sutura waaye bu fekkoon ne yàlla day xaawiwaatee sutura wallahi dinañ gis kum fonkoon ñu daal di koy sànni loolu Abdoulaye Nassim doon wax naan su ngeen xamoon mun su fekkoon ne bàkkaar day xeeñ mu ne kenn toog ak man foofu la Abdoulaye Nassim ni mu ragalee woon yàlla mu ne bu bàkkaar amoon xet di xeeñ mu ne ku toog ak man doo da ngay jóg dem sa yoon ndax xet bi da lay xaw a rey su fekkee Abdoulaye Massoud fonkal mu doy noonu nga xam ni yéen ci yàlla bi ne ne ñaari yeelam yu sew yi moo gën a digg fa yàlla montagne oxat xol boobu seedi mu ngi réyee ndax da doon yéeg ci garab yéefar yi gis ko tànk yi xaw a tool ñu di ko reetaan yéen ci yàlla bi mer ko loola mu giñ ci yàlla ne mu ñaari tànkam yi moo gën a diis montagne oxat fa yàlla xoolal kooku ni mu ragalee yàlla ni mu meloon kuy giñ ci yàlla naan amul aaya bu wàcc ci alquran lu dul xam naa kañ la wàcc suba la wala ngoon la ba muy wàcc ba doon taw wala daan naaj su ma gisoon ku ma raw te tànk mën a dem xaw ma ma dem jàngi ci kon kooku nim na kooku mooy wax loolu kon yow la war a wax xanaa noppi noppi rek jàpp sutura si la yàlla suturaal rek tey naan mu doon lekk nga war a amul la wax waaye nag li ma ëppal solo na ci bisu àjji mooy ñaan kon liñ suñu soxla yu bari yi feebar yi limal limal limal limal la limal yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bisu àjjuma am na waxtu woo xam ni benn jaam ci jaamu yàlla yi du ko tàllal ay loxo di ko ñaan lu dul yàlla dana ko may la muy ñaan borom xam-xam wax nañ ci ay wax yu bari donc man ñeen fukki wax sax ñi naan bii la ñi naan bii la ñi naan bii la ñaari waxtu yi gën a dëgër benn bi mooy ba imam toogee ci minbar bi xutba ñaareelu waxtu bi mooy diggal takkusaan timis te diggal takkusaan timis moo gën a wér diggal takkusaan ak timis moo gën a wér ndax yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci riwaaya bi wér mu ne waxtu woowee diggal takkusaan ak timis la xadis boobu alimam munziri mi ngi ko ni ci tarbiib ba tarbiib moo tax xaafis ibn xajar ci fathul baari loolu la gën a lëngal kon ñaan balay ñaan daa mel ni mbokk mi li may fàttali jàng suratul kër jazakumullah xeyr yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku jàng suratul kër si ci bisu àjjuma yàlla da lay defal ak leer ba àjjuma ji dul allahu akbar gan leer mooy leer gën a bàyyi ko ci yàlla ndax leer la gubati tegee déedéet waaye leer la goo xam ne ku ko yàlla defaree borom xol yu leer yi xam ko wallahi rabbina leer la boo xam ne ku ko yàlla defar borom xam yi reer yi xam ko jàng suratul kahf ndax xam nga sax li suratul kahf loolu gàcce la ci ab julit ndax mokkal nga loolu gàcce la ndax mën nga sa sax liir loolu gàcce la te suratul kahf daa bokk ci yi lay musal ci masiixu dajjal comme ni ngeen ko xamee ci xutba yi gën a ci masiixu dajjal am na beneen riwaay yonent yàlla bi ne fii ba lu tolloog yaatuwaay bi day fii ba kaaba ga fii nga toog yow di jàng suratul kahf ba kaaba ga diggante bu toll noonu yàlla dana la ko defal mu leer naa ñu ci yow allahu ndax kenn ci ñun am na ku soxla wut leer bu mel noonu déet di ko jege sax bëgg nañ waaye bala maa ñëwaat ci ñaan ndax mu laa mere mujj maa ngi fàtta ba léegi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahu akbar wala rek ñun ndeysaan ku julli ci yonent bi benn yàlla julli ci yow fukk ku julli fukk yàlla julli ci yow téeméer yàlla dem nag ba di la tudd ci kilma la il aala ca téye yu kawe ndax lan ndax yaay kon ala osala si gaawal ndax waxtu jot nañu julli ci yonente bi saa sallam benn saxaaba ne ne yonente bi naka la ñuy jullee ci yow te yow faatu nga yonente yàlla bi dañu ku julli ci man yàlla dina yeggee julli googa ci man ba ma yëg ñi diw sàngam doomi jiw ak diw dëkk ca Sénégal ca Bambilor allahu akbar yonente yàlla bi ne dama yëg ñi diw sàngam doomi jiw ak diw dëkk ca Sénégal ca Bambilor ca quartier nangam julli na ci man saxaaba yi ni ko ah mu ne waaw naka la ñuy jullee ci yow nga di koy teew faatu ba ba saw yaram da- suuf lekk ko mu ni déet tee ngeen a wax lu ngeen xam suuf dana lekk yaramu ku ne ba mu des yaramu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala aw yaram yonent tey boo demoon fa yonent bi nekk nga sulli armel ba da nga koy fekk mu mel nam meloon ca rek ba muy dund ak saxaaba yi fépp sawar fépp sawar sax ruutu ca noonu lay mel sallallahu alayhi wa sallam kon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى والله والله اي نit ay nit ah ñuy góorgóorlu ci sunna dund nañ julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko saxoo gis ci ay njëriñ yoo xam ni du ñooñu xaw ma ñan waaye duñ ko bàyyi ba ila yawmal qiyaama ndax dañ cee gis ak seen bët ay njëriñ yu leen ci yàlla defal subhanahu wa taala lu la ca wax rek xamal ne loolu loolu dañ laa jundal rek bàyyi waaye waxuñu la lépp kon bari looy julli seen façon ci bis bi waaye nag li may jeexale mooy ñaan allahu akbar wallahu alganiy wa antum alfuqara yàlla mooy ci am ñun ñooñu ñàkk ndax aajowuñ ñaan yàlla mu nangul comme ay jigéen ngeen ku la jigéen lim aajowoo nim bare lépp aajowoo ñaan waaye comme xalqa bi lii la nan wax lii xool nim aajowoo ñaan nga dugg aljanna mooy al gaayatul qaswa njom waxtan ba mosu ci sawara wala sawara ni mu neexee wala àjjana ni mu neexee wallahi am lépp am xam yàlla ak am àjjanaa te dàq ñàkk yëpp ñàkk safaraa te dàq loo am te àjjana bokk ci amoo dara loo ñàkk te am nga àjjana ñàkkoo dara est ce que yaa ngi ñaan yàlla yàlla boole ci min asalihaat ومن يعمل من الصالحات ها من ذكر او انثى غور ولا جيجن ده بوك الصالحات غير من هل اقل موي موي موي nga jël sax lu baax bok wallahi nga jël ñaan yalla subhanahu wa ta'ala neex na lool diw ni ni borom xam xam bu mag ak ni yëpp xam ko allahu akbar muy tuur ci xam-xam loo xam ne umma muhammad mi ngi ciy jëriñu ah dana yaakaar yow yaay yow mi ko doon ñaan yàlla yow mi ko jur yow mi ko tàkk doo ci am pourcentage waaw yàlla xanaa mun ta fay ko su fekkee ni ñii ñii ñii fay far àddina rek salaire boo amee jabar am doom sax ñu yokkal sa salaire parce que rabbul ibad yàlla yow mi nga xam ne jël nga doom di ñaan yàlla ba am ko sonn ci di ko ñaanal ba mu nekk ab borom xam-xam bu mag wallaay bu ne ingénieur baax na mécanicien baax na lépp baax na baax na dagal na waaye kuy ndëgët da ngay ndëgët lu kawe loolu la leen ci di jàngal ñu di am ab borom xam-xam boo xamante ni day jëriñ ci umma bi loo xam ne yow li pourcentage ba nga ca am rek ba nga ca am rek bu la ko yàlla fayoon laa wax yow doo soxlaat nga koy jaamu yàlla nga ñaan ko yàlla wallaay salaf salih jigéen ñi dañ ko doon ñaan maa ci mën a lim ay xisas yu bari waxtu wee jeex yi lay wan ni ñi dañ doon ñaan yàlla ngir yàlla defal leen loolu kon gis na te ñaan yàlla subhanahu wa taala fay soxla ñaan wallahi am na ay mbir yoo xam ne ay nitit dund nañ ko ci ñaan dañu ne foog ni ñaan yàlla léegi mu nangu léegi xëy na wallahi xëyee ko ay nit dund nañ ko yoo xam ne xam nañ leen te ay mbir yoo xam ne du nekk ni sax du nekk ni xam nga mën nañ laa nekk ni nga naan ah wóolu naa ko sama xëy na dëgg la wala ñun si la nga naan est ce que dëgg loolu dëgg waaye mbir yii may wax ay mbir la yoo xam ne ñun dépassé nañ dëgg la am du dëgg ndax wóor nañu ñaan yàlla léegi mu nangu léegi wala ñaan ko tey mu nangu suba wala ñaan ko àjjuma balaa àjjuma ji dégg mu nangu loolu moom li ci ñoon a joxe ci misaal bari na li li ma laaj mooy gën a toroxlu di kaakin da ngay baax ba yëg sa njafa bokk am déedéet wallaay toroxlul rek toroxlul yàlla mokkal sa xol bi ba mokk rumbu su jóot ci kanamu sa borom bàkk ko ci ay turam ak ay melokaanam talal ay say loxo jullit yéen sa xalam ñaan yàlla yàlla man kat naa ngi nii mais man kat boo ma dàqee fu ma jëm man kat aw ma aaju ci keneen ku def yow keneen ku am leneen na ko téye ndax bëgguma leneen ni keneen te yow laa bëgg yow yàlla soo wax ay wax yu jub yu mokk yu nu lay ba mu tew nga wax ko yàlla subhanahu wa taala julli seen safalam jiital ko booy pare tamit nga julliwaat seen safalam ñaan say soxla ak soxla nga wér soxla nga zurriyatan tayyibatan mubaraka ndax alquran dañu bokk na ci melokaanu abdurahman mooy dañuy ñaan yàlla may leen njaboot yu baax yu barkeel وجعلنا للمتقين إماما soo paree ci loolu ñaan yàlla mu defal la nga am xam-xam ñaan ñaan ñaan ñaan li nga mën a ñaan dafa bari kon daal li ma ko wax mooy àjjuma la loolu ah man de wax dëgg yàlla damaa yàkkam ci àjjuma lool ndax xam naa ni projet yi ñu am ci ci ci ci l'islam soxla yi ñu am bakkaar yi ñu am yitte yi ñu am ah dëgg yàlla àjjuma ci dal lu mu gàtt gàtt gàtt boo defee loolu waa war lépp tàkkusaan xësee jot na boo mënoon cinq heures ba timis da nga koy tëju defal lool soo ko mënoon boo jullee tàkkusaan préparé li nga war a def def ko ba six heures jot six heures fu mu jotee moom bul amati soxla ci keneen wallaay la la jaral boo amee téléphone nga coupé ko xaw ma aaju ci keneen parce que nit ñi dañ may soxla ma di leen soxla waaye suñu toll nii soxlawu ma kenn bu ma kenn soxla coupé sa téléphone nit nit ñi nañ la ko xamee da ngay dem ba yar ko sabab ba nit nga xamee la tàkkusaan fu mu ko see jot ba ma def li may def ba cinq heures jot six heures jot damay dem tëju nit ñi nañ ma xamal programme boobu gis nga am ñoo xam ne ñoo am fayda ba ni gis sàngam bu ma ko kenn seet parce que damay liggéey gis sàngam bu ma ko kenn nangam nangaat di fexe ba sa dund gi yëpp amal programme mu àjjuma bu jotatee six heures bu xësee jot jëm kaw bu ma kenn jot bu ma kenn woo téléphone coupé sa lépp ndax ci ma dul coupé sama diggante moom yàlla ko xala nga ñaan essayé suba rek waxuma ay fukki yoon juróom ya essayé ko suba nga dëggu ànd ak yàlla wallahi yàlla dëggul la subhanahu wa taala dama ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ba lii mu nekk loo xamante ni lu yomb la waaye nag seytaane gis nga buñ fi jógee dañ koy xomantal barki ne maa ngi ko ci jàkka ji gis nga bokk na ci yi ñu seytaane ma ne ba li ngeen ko wax laa taxsirina min al maaruf seen xeet ci yàlla aleykum salaam déedéet déedéet déedéet parfum bi jigéen taxul góor moo taxoon waaw mat naa laaj mat naa laaj laaj bu am solo la parfois bu góor a tax bu dee jigéen la nag bu dee ci biir këram la nekk génnut mu jullee foofu mu def ko dara nekkul waaye bu dee jigéen du génn far sujóot ñaan ci olof mën naa nekk waaye nag nit ki bu fekkee sujóot la mu ñaan mën naa bàyyi ba ci mu tàllal ay loxo ndax yent yàlla ne ci tàllal ay loxo ñi yàlla rus na koo wax duma la may dara ndax yàlla ku am kersa la ku baax la jaamam bu defee nii du ko bàyyi sëkk kon mën ngaa julli ba sël mën nga tàllal say loxo nga ñaan yàlla bu fekkee moo fa sos dama nekk mën na ko def donc nag bañ ko def moom mooy liggéey ndax ñaan moom ñaan la fekkal bi wax ni xaw def ko arab amul waaye nag nit ki bu fekkee mën na koo defee ci naate la moo gën wa illaa bañ ko def sax ci julli gi olof bàyyi ba pare mu talal ay loxoom ci bisu julli gi mu daal di ñaan yàlla si mën naa talal ay loxoom ñaan yàlla mën nga am lu mel ne xëj am na benn téere al ilaaj war ruqaa defe naa comme bu tal ni xëj na ko fer boo ko seetloo téere la bu ma yéen ndax lim ma yéene mooy damaa xool la ca ne ci ay ñaan daanaka xaw tuuti ko nañu liñ war a ñaan lépp dajale nañ ko te ñaan yi daal dëppoog la yent doon ñaan sallallahu alayhi wa sallam bal sax ay ñaan la yoo xamante ni xam naa bu amee lu ko wér ci bëri loolu su nit ki yor ko di ko liir di ko waxaale loolu su fekkente ni nit ki mën na ko def moo gën ndax rabbana yi ne ci alquran yëpp daanaka dajale nañ ko loolu rek doy na beneen bi des mooy ñaani sunna yi rek ci buxaar ak muslim ak téere yi sunan yi abu daaw tirmisi yëpp daanaka dajale nañ ko ci ñaan loo xam ne it àjjana mooy li ca gën a kawe ak am ngërëmal yàlla waaye ñaan yàlla ba ñaan yàlla mu musal la sax ci deegu ñaaw ma nga man na suñu ñaan boo xam ne yàlla day muslu ci deegu ñaaw ak feebar boo xamante ne day xaw ci sutura yooyu yëpp am na ñaan yu ko andi ci sunna kon yooyu nag ci bu ko mënee am téere la boo xam téeméer defe naa lay jox téere am na yu bijjam yu rëy yoo xam ne yow yaa gën a neex a liir loolu kuy doog a tàmbali liir sax mën na koo am yooyu defe naa mille xoma cent cent lay jar وصلى الله وسلم على محمد bu dee julli farata jigéen ji jullee këram moom mooy li gën waaye bu dee àjjuma nag moom bu fekkee xutba am na ca jàkka ni dina mën a jëriñoo yenn ci borom xam-xam te man loolu laa jàpp ne mooy li gën a dëgër da koy may permettre mu dem juma demuma juma ngir dem juma moo gën toog laa tax ren ci jigéen toog ci këram moo gën waaye yéen tamit bu kenn tere jaami yàlla yi jigéen ñi dem jàkka ja ndax am nañ àq ci jàkka ji rawatina nag àjjuma surtout bu fekkee xutba dafa am joo xam ne mën naa ca fàttali ko xam nga tey conférence yaa ngi am ak cours yeeg nangam ak yu bare bare bari man sama dundu bopp man du ma préféré sama soxla di ca dem ci yenn di taage ni bu xam-xam déedéet man dama gëm ni toog jàng moom mooy moom mooy yoon bi toog jàng mooy yoon bi dëgg la nag su ma su ma gisee lu am njëriñ si lu mel noonu su ko nit ci jëlee mu nekk mën a jël laa takk dem jumaa da koy daal di bëgg a war la ndax lam koy waree mooy xutbay juma xutba la joo xam moom rek bu njëkkoon conférence amul formation amul tour amul séminaire amul dara amul ajjuma ba ajjuma lañ doon dajee yoon su ma fàttali ne waaye si dem juma rawatina déglu lu ko jëriñ ñoo toog ko su boobaa dem gi man laay gën a gis ka bañ a dem su fekkee jigéen ji amul nga am wallahu foofu borom xam-xam yi wuute ndax xarit dafa ne yoon ci ak xam mu ne bu fekkee ngay julli te borom xam-xam ñu ne ginnaaw tàkkusaan kenn du ci julli ahan kay danañ ci julli heure bi jant bi sol la ñuy tere ko julli bu la neexee nga julli ñaar raak ba noppi toog doog a ñaan bu la neexee nga toog ñaan boo ci def def nga lu baax wallahu